Samba ñëw na fi deewaat ñëw nga damay xaar sa papa ak sa ñoom mu may létt wala nga firi ma. yow yaa ngi ma demloo ci bu umu xayri ah amul lu ma fa nga may wow naan ma seen bànk ci man. sama yaay nii laa koy bàyyi sama yaay. lii moo ko tal mu nekk fii dama wax ay waxu sëy te ma rek bés bu ma daanee. ma lay bak jaww tey li nga xam dam la cee woo nga ñëw ci parti bi nga xam ne ci laa nekk dama la bëgg sa jàmm moo tax. yaa ngi may saaga opposition laa nekk maa tey. xëy na kaw nu nu nu doon ala problème. damaa bëgg damaa nga déglu ma bu baax. waaw maa ngi nii tiim geju Tamba Dieng yi. ah tim yoxos gi waaw tim duufa gi diwtiir geeg kecax geeg ah de xanaa boo amee seetlu sax war na laa mën a xeeñ foofu ah, déet déet xeeñu fa de xeeñu fa de moom nee na ciment plâtre la benn yoon doog lay tooñ eh, ciment dañ koy xuuja man maa la wax ben dong lay yoon dong lay tooy ah loolu nga wax ah, mun naa tooy tooyaat a ah, ko dunga kaa laaj bu fekkee ne 10 millions yooyu yëpp na ma tooyaat lu wot affaire bi du man maa ko fi njëkk Ousmane uh-huh. Tanor Dieng dem na a aw rek Serigne Mbacké Ndiaye dem Souleymane Ndéné Ndiaye dem na. kon nag da ngeen may jaay dere di ma jaay naqari dere di ma jaay amul ah bu ñu telaw ñëwee nee ko dem ca mbaxane ne Kébémer dinaa dem ay fan a ngi nii may wër di dajal. sa loolu sama xaalis ba ma daan wër. Ah. ñaari millions waaw gone gi mooy ki ko far jël xaalis ba nag jox ko calaw calaw calaw mënuma fexe fexe fexe ba teg ko bët su ma demee kër calaw ñun ma génn su ma ñëwee ñun ma mi ngi noonu di génn su ma ñëwee ñun ma jaar na fii su ma jaaree fii ñun ma jaar na fële ba léegi ah! waaw naa loolu nag doo ko gis sonn naa loolu calaw kañ doo ko gis mi ngi nii de mi ngi nii de kii nag moom sant naa ko gërëm naa ko ndax lu ma sonn rek sonn na lu lu raaw. yow nga ne moom moo ko for jox ko calaw. laa ay jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg yàgg daje. wallaahi. calaw fa ma jëm ak moom xam naa ko nañ dem. Eh. baax na jërëjëf. jërëjëf. ok laa. ah. kon kañ. li moo tax calaw jox ma un million yi. daa xamul moom Mariama fu mu xëy sax dem ni affaire bi jaaxal na ma munaas munaas ah, munaas ay xanaa da nga doon xool bët dafa ma bëti biig yaa ngi nii damaa xool ba quatre heures du matin hmm. ndox mi mënta fexe ba yéeg ci kaw robinet bi ubbiwul ubbiwul benn ndox amuñu ko eh, li metti na te yàlla waaye ñoom bu ñu atanu ndox mi wax dëgg fa yàlla du ñu wàcc nag bay keneen yéeg dëgg yàlla yaa ngi yor réew mi attanoo ko na bay affaire ndox mi. sonn naa lii métti na de. métti na lool te jabar yi kenn du ci róor. xam nga loolu rafetul. yéen a wu ñu wàcce wu. Ah. doy na waar de. waaye xadi baal sa jooy tamit na yow it jarul jooy ah man yéene naa lu ëpp loolu loolu mën a andil du dara incha allah sax man loolu dinaa ko yokk. mama jooyu ma loolu de. looy jooy kon. Samba sama yaay. nekk juróoma. waaw. te man xaw ma ci dara. sama yaay bu dee juróoma mënuma wax juróoma. waaye kan moo la wax loolu. sama benn xarit. Faye Ndiaye. moo wax. yaayam ak sama yaay. ñoo doon waxtaanee loolu. Eh. doy na waar de maa ngi ñëw nag yegg ca garam place ba ndaxte dafa am loo xam ni moom laa fa war a lijjat xam nga rek waxtaan wa déet nijaay ah. mënoo dem de lu tax ba mënumaa dem borom xaalis bi ñëw na fii démb di la seet tuutee démb dóor ma ñëwati na fi ñëwati na fi man ko sama nijaay nekk fi mu bëgg a yëkkati loxoom dóor ma eh. bu la naa ko nee ko ku lu góor saara leen man billaay barke Seex man ko li ngay wax def li ngay wax rek danga koo wax ci ginnaaw saar ah. waaye bu saar taxawoon góor yemb yabu ko def ah. ah. noonu la demee billaay yow wax jooju doo xaar ba xam am na dalin ak fan la jógee sax ba xam am na am amul yow nga dégg rek kër rek njël jël jël jël situation bi di ko yóbbu nii di ko aj di ci jooy nii loolu baaxul Samba du loolu waa metti bi yëpp di waxtaanee te sama yaay mënuma ko wax man moo ma metti sama yaay war naa am courage ne ma juruma parce que moom rek laa xam xawma kenn waaw jarul jooy yooyu tamit ma chérie dégg nga xoola jarul jooy léegi fi ñu toll nii amul benn problème dangay toog nii ba dellu nga bàyyi sa jooy yi parce que jooy bi mën na laa yóbbee ay ay ay bopp yu metteeg lu kenn xamul bàyyil jooy yi dégg nga dangay ngay woo sa yaay ndànk nga woo ko yéen ñaar fu kenn nekkul nga ne ko yaay booy dama bëggoon ñu waxtaan léegi bu ko defee moom li ci nekk lépp dina la ko wax. gis nga ñëw nañ fi ñaari yoon fekk ñu ma fi xam nga ñëw nañ fekk fi wuli ñëwati fekk la fi nga lu waral loolu. du ñu dajeeg man mukk du mbiru yàlla ak yooyu de. Ah. du yàlla yoonu yàlla ne wu ci bii ma takk ndomba gi feeg maa ngi koy takk. sëriñ bi nee na. feeg maa ngi koy takk ci sama ndigg mhm. duñ ma gis mukk ni yaa takkala takk takk <laughs> duñ ma gis mukk bilaay duñ ma gis ah tiitoon naa rek ma gis yooyu ma nga yegg ca garam palaas waxtaan naa ak moom mais nangu wax lan wax na ma xaalis bu bari bi mu fa indi waaye sàmm gis nga naqar bi ne sama biir xol bi di ma jam mënuma ko boole ak leneen dama bëgg nag sëy bi ñu teg ko ci suuf ndax yi problème bi mun nga ah. koo boole ak ko teg ci suuf moom la mooy ñu waxte waxu sëy nañ koy ci kaw ah yow ma doo xool tamit ni ma la bëggee bëgg ba la bëgg ba Sénégal yëpp xam na ne bëgg naa la aj ma commencé di wax naan yóbbu naa may bu njëkk lépp nga nar a jëkki-jëkki rek coupé sama appétit nii naan naan sëy bi nii lii ah? ngay def nag da ngay xool li ngay def de da xool li ngay def sëy bi moom moom moom du fi demee ne commencé naa yëgle ba pare laay ay waay waay waay waay waay ay man Samba commerçant lu ma dal mu seddul de waa Cheikh peau jaune rek laa la laaj nag ak benn tip dama bëgg a defar sama yaram bi yow tamit waa Cheikh doo ma wuy yow tamit waaw wuyu ma yow tamit nag Cheikh nag nit ki nag di wax tamit nag ci ngelaw loolu baaxul bu fekkee danga may jox ah. nga wax ma boo ma joxul tamit nga wax ma nag. waaw waaw. yab ma weesuwul nga fekk ma fi di wax ay waxu nga mel nii kan kan moo tax nga sama jëkkër. sa jëkkër waaw man bokkuma ci. ah bokkoo ci moom. mais man am naa ci wàll. ndax diw diw diw yi ma la jox moo tax nga mel nii. waaye saa yow ma lebalee nag dama lay fay waaye waruma fi ñëw di dugg di la leb nga may fayee di ma di ma kiyee bakkan pour la dama danga may leb ma rek ma di la fay Cheikh. yow yaay lan la. ci lan loolu. yaay lan la lu xew. ah lu war a xew xadi. yaay li may dégg ci mbedd mi. lu tax mënoo ma koo wax. yow loo dégg ci mbedd mi. xamoo lan la. xaw ma ko. yow est sama yaay nga. yaay xàmmeetu la. kii yow la nii. man mi may wax ak yow. kii du yow. ndax man maa war a wax yaay li nga waxtaanee kër yaa awa xam nga ko bu baax. man lu ma war a waxtaanee kër yaa awa man jàpp. xamoo loo waxtaanee kër yaa awa. xamoo ko xamoo ko dama faa waxul dara. la nga waxtaanee kër yaa awa nag soo amoon courage wax ma ko. yow mii boo mandiwul ma nga gees di la ma jàpp. mandiw ma dara jotu ma. yow mii yaa mandee jàmm yoo xam ne da ngay soppeeku. soppeeku soppeeku ma de. fii nga may fekk man. waaw baax na man maay pëlum pëng mi jeegu boo soppeeku maa la gën a mën a mi sa nay. xam a keroog fii laa ñëw su may fat ak su du fat lan mooy seen yoon droit bi ngeen am droit boobu laa am may wax ak sa yaay nga ci am loo ci wax di pilige naan ay nangam sangam. man nag maa ngi bëgg a coono ci am man lan laa wax kër yaawa seeti yaawa mu feebar di waxtaan moom lan la ah waaye yàlla leeral lépp yàlla na yàlla leeral lépp ci barke yonent moo tax lebaluma la dara. léegi loo bëgg sooy xuloog sama nijaay ma faral la pour lan. waaw xam nga ne ñambaas yàqul sër sama nijaay laay faral. boo dee leb daal nga lebal ma boo ma lebalul nga bàyyi ko yow kese nekkoo fi di jaay diw may ma sama moo tax nag man doxuma la. man it bi waaw. yow li nga def sa bott yi. waaw bu sama nijaay ñëwee dinaa la boole. a fii laa jël sa ndekki ngay jaay sa xol maam comment di préparé di def ndekki day bu sama nijaay demee ma wuti ndox nga dugg ci bi. da ngay bu sama nijaay boo ko wax sa maam sax sama nijaay xamoo sa bi ina mu sax eh yow léegi dugal nga ñëpp waxuma dal sama jabar lan moo sa yoon nijaay lan moo sa yoon yow nag jabaate lan moo sa yoon keroog fi nga wax sama nijaay may wax naa ko wuli faale wu ma. yaa sa nijaay faale wu ma leen ma fekk sa place yoxuma leen dinañ. sama bopp. eh calaw waaw mais Sow waaw yow Sow eh ak eh taxawal yow foo jëm yow lan moo la dal ak kan ngay taabu fan nga jëm yow saay xame woom wuyu ma Sow kii dafa jagadi wala daa am lu ko dal si diggante bi wala nu mu demee nu mais ay ndombu li lii ay ndombu di takk di tekki lii la la. waaw doo ko bàyyi ba mu pare bàyyi ba mu pare rek yow. waa mais kii kii. eh Calaw eh. Sow mais kii dafa feebar wa. eh eh ma eh sa waay eh, eh xoolal eh, taxawal Calaw eh, ma fii. lan la sa sa ñàkk fayda nga koy bàyyi. yaa ngi dégg sa yi ngay def nii ñun yëngaluñu yow nag xam nga mu bu baax. bu dee sëy yi nga yaakaar ni moom moo ñu téye naa ngi nax sa bopp ay affaire yi dégg ma sóob di kii wax ji sax boobu kii yow eh, yow xamee nga moo la xamee woom yow nu ma la xamee yow yaay kan yow mun nga ne xamee woo ma yow yow yaay kan laa wax eh, man maa ñoon sa kër jox la deux millions laa la wax nga naan ma ay nii ay eh, na wàcce sa loxo waaye may ma nga may ma nga ne ma ay karaw yu ñuul saa xoolal bul ma xoolal bul tax ma waaw yow xoolal rus naa la su ma la rusu toon dina am nu mu demee ah mu naan ma borom karaw bu ñu wax ni man yëngalu ma. man dañ ma càngati dégg géej gi lenk li ma ci di déem a yi ay pexe say ngay def am na leneen lu ko jaar. joxal xaalis bi jàmbur yow lañ la wax yow. loolu lañ am luñ la wax. di nga xam ne lépp dëgg la lii xamoo lan la téye téye wala di nga xam lan la téye lii di nga xam lan la yow nga dem wuy ji police